mooy cëru murit Kouriteef rek mooy yoonu murit a dikk ci magam ju baax sëñ Sidi Mbacke gis na nin joxante loxo njaboot sëñ asgari gi yëpp nag a sedd tey macha allah. sëñ As jërë jëmmi sëñ As di jëmmi sëñ Modou Mamoun di toogaayub sëñ As sa rakk ju baax ji di sëñ Modou Mamoun nee na lay nuyu. wax ji du bëri. nee wax ji du bëri. du guddi nag. nee du guddi nag. kon ku xam na ne. ndax lee nag ku ne xam na ni. bi weer wi teroo ba léegi. bi weer wi teroo ba léegi. amoo ak jot. nee na amoo ak jot. sa yépp yëpp. nee na sa bi rek la. nee na bis rek la. lii yor nag. nee na yor nag. ci loxoom. nee ci loxoom. ci sama loxo. ci loxoom. ab code la. nee na ab code la. su ma la ko waxee. nee bu la ko waxee. di ko dégg. nee di nga ko dégg. code bii. nee code bii nag. ñetti fan am na. nee ñetti fan am na. bii mooy ñeenteel bi. nee bii mooy ñeenteel bi. jërëjëf Mbacke Arab nee na code la. ñu dégg nga ma. nee ndax dégg ko. balay si dégg nga ma. nee na balay si ndax dégg nga ko. ñetti fan yi jàll. nee ñetti fan yi jàll. bii bi. nee bii mooy ñeenteel bi. nga ñaanal ñu bu baax. nee na nga ñaanal ko baax nag. fii may wax yow. nee na fii muy wax ak si jo li des si jamono. nee li des jamono. sakkuwuma dara. nee na dara. lu dul lu dul sa mbégte. nee lu dul daal sa mbégte. noo béggee nag baax na. nee na noo béggee nag moom baax na. waaye bégal rek. nee na bégal rek nag. na. nee na rek nag. tax bëgguma jotaay bi yàgg. nee na moo tax bëggul jotaay bi yàgg. ndax na. ndax nee na tàng na. te xat na ma àndal ñu nii nee na ma àndal ñu ngi nii Serigne Touba rek tax nee na Serigne Touba nag la ànd ñoom fenn fu nekk nag nee na kenn ku ci fu ne nee na fenn fu nekk waaye ko na fa nee na waaye bàyyi ko na fa ngir jëmi Serigne Touba ngir jëmi maam Cheikh ngir jëmi maam Cheikh soo gisee man ak ñoom nee na nag boo gisee man ak ñoom dañ ay ndaw nee dañ day ndaw. di ay tuut tànk. di ay tuut tànk. ci seen biir tàmbaleegul. nee te ca seen biir tàmbaleegul. ma bëgg nag. nee na nag mu bëgg nag. nga ñaanal leen. nga ñaanal leen. ca xool leen. ca xool leen. bëtub yërmande. bëtub yërmande. ba buñ fi jógee. ba buñ fi jógee. kenn ku ci nekk. kenn ku ci nekk. loo tàmbaleeti. loo tàmbaleeti. mu yegg. mu yegg. ci barke bis bi. nee na nag ci barke bis loolu rek. nee na loolu rek nag moo sabab nee na moo sabab ma ànd ak ñoom nee na moo sabab ma ànd ak ñoom waaye man dong rek nee na moom dong mënoon na maa ñëw nee na moom rek mënoon naa ñëw waaye bëgg yërmande ji yaatu rek nee na waaye bëgg yërmande ji yaatu rek moo tax ma ànd ak gone yi nee na moo tax ma ànd ak gone yi gone yaa ngi nii nee na gone yaa ngi nii yaa ngi nii nee na yaa ngi nii ñaanal leen nga ñaanal leen ci sa barke maam ci sa barke maam ci sa barke baay ci sa barke baay sëriñ as gede sëriñ as gede sa borom faj seeni aajo sa borom faj seeni aajo ci guddal seeni fan ci guddal seeni fan ci barke borom Tuubaa ci barke sëriñ Tuubaa loolu rek Mbàkke nee na Mbàkke loolu rek

da cee baax nee da cee baax comme yow sëñ Mamour yaay jiite ndaw ñi kon nee na yow sëñ Mamour comme yaay jiite ndaw ñi yow xam nan la nee na yow xam nan la xam nan sa taxawaay xam nan sa taxawaay xam nan sa yitte nee na xam nan kër gi la kër la ñor nee na kër gi rek moo la ñor kon nag nee na kon nag ndaw ñii ndaw ñii am na ci xam xamuñu am na ñoo xam ne xamuñu kon dañuy may may ñu ñaari minute kon nee na nga may ko ñaari minute ñu jot leen rek nee na ñu jot leen rek na am na la ci xam sax na am na ñu ko ñoo xam xamuñu la na ñoo xam ne xamuñu ko su ma joxee kàddu gi sëñ Modou Rokhaya kon nee na mu leeral leen mu nee na nag mu leeral leen ndax booy jëf a xam na da ngaa war a xam li xam ki ngay jëfal nee na xam moo ñu boole waaye ñun nee ñëpp bis bi rek moo ñu boole na bëgg mu jag rek ci yow da nga cee jàpp bu baax nee na day day jàpp moom mii bu baax bu baax a baax nee na bu baax a baax bu baax a baax nee na bu baax a baax kon nag day jaadu kon nee na day jaadu ñu leeral leen ko ñu leeral ko kon ma jox sëñ Muxtaar nee na kon day jox sëñ Muxtaar mu leeral leen nee na mu leeral leen sant leen tamit nee na nag ma sant leen tubarkàlla nee na alhamdulilah rabil alamin ñoo ngi leen di nuyu sëriñ bi nee na ñu ngi leen di nuyu ci turu suñu kilifa nee na nag ci turu suñu kilifa suñu sëriñ suñu sëriñ sëriñ Sidi Maxtaar Mbacke sëriñ Sidi Maxtaar Mbacke li nga xam ne moom la suñu borom dogal mu toog fi jotaayub si ñaas moom li nga xam ne moom la suñu borom dogal tey mu toog ci jotaayub ñaan suñu borom mu yàgg lool nee na nag ñaan suñu borom mu yàgg fi lool di jël nuyoo boobu di ko teg ci loxob sëñ Maamoun nag mu jël nuyoo boobu ko teg nag ci loxob sëñ Maamoun Mbàkke mii ngir mu jottali ci njaboot gi nee na nag mu jottali ko nag ci njaboot daanaka wax ji euh, xawoon naa mat nee na daanaka wax ji xawoon naa mat waaye sëriñ bi day feeñal yéene rek waaye nee sëriñ bi day feeñal rek yéeneem ndax mbir moo xam ne ña ko seq. ndax mbir moo xam ne ña ko seq. kenn ku ne ci ñoom. nee na kenn ku ci ne ci ñoom. la nga seq ak sa moroom la nga ak sa moroom leer na ci yow. nee leer na ci yow. daanaka jëratul. nee na daanaka jëratul. di wax ci penc. nee na daanaka jëratul di wax ci penc. waaye am na ñoo xam ne. waaye nee na am na ci ñoo xam ne. bu nu gisee mbir. nee bu ñu gisee mbir. te xamuñu lu mu doon. te xamuñu lum mu doon. day aaja nag. nee na day aaja ku leen leeral. ku leen leeral. ndax njabootu suñu as gëdë. te tey jii sëriñ Sidi mi nekk. nee te tey jii nag sëriñ Sidi Mbacke mi toog nag ci jitaay bi. waxuma taxawaayu sëñ As Gede. nee na waxul nag taxawaayu sëñ As Gede. waaye taxawaayu maam Cheikh Anta. waaye nee taxawaayu maam Cheikh ci sëriñ Touba. ci sëriñ Touba. képp ku ko yaakaar. nee képp ku ko yaakaar. wala nga ànd ak moom. wala nga ànd moom. wala rek nga sopp ko sax. wala rek nga sopp ko rek. war ngaa fonk sa kilifa. nee na war ngaa fonk nag sa kilifa. ndax euh, maam Cheikh Anta. ndax moom maam bi muy ànd ak Serigne Touba. nee na bi muy ànd ak Serigne Touba. ab cër taxul woon de. nee na ab cër taxul woon. bëgg a seexit taxul woon. nee na bëgg a seexit taxul woon. waaye lu ko ca dab rek la. waaye nee na moom lu ko ca dab rek la. kon mu mel ni. kon mu mel ni. képp koo xam ne. képp koo xam ne. ci keppaaram nga ne. ci keppaaram nga ne. war ngaa fonk sa kilifa nee war ngaa fonk nag sa kilifa. kon maam Cheikh Anta. kon nee na maam Cheikh Anta. Serigne naxu ko de. nee na Serigne Touba naxu ko. waaye maam Cheikh doon jënd. daa fekk njëg nee daa fekk nag njëgg mu jaral ko lu ko ëpp nee na mu jaral ko nag lu ko ëpp ndax kenn ku ne ndax kenn ku ci nekk nivo bi nga bëgg a yegg nee na niveau bi nga xam ne yaa ci bëgg a yegg ci wàllu yokkute ci wàllu yokkute la muy jar nee na la muy jar bu la jaralee lu ëpp njëgg nee na bu la jaralee lu ja lu ëpp njëgg da nga egg ba desal weccet nee na di yegg nag ba desal weccet waaye bu la ko jaralul nee na waaye bu la ko jaralul doo dem fenn nee doo dem fenn maam Seex nag nee na maam Seex Anta nag da koo jaralan nee na koo jaralan mu jaay ak njureelam nee na mu jaay nag ak njureelam jaay bokkam nee na jaay ak bokkam jaay léppam nee na jaay léppam ñu ne ko loo koy jënde nee na ñu ne ko loo koy jënde mu ne Serigne Touba nee na mu ne nag Serigne Touba laa koy jënde ba ay bokkam nee na ba ay bokkam daa ko ŋàññi nee na daan ko sax ŋàññi ci magam ji mi topp ci magam ji nga xam ne moom lay topp bu yéegee ci fas nee bu yéegee ci aw fas mu topp ci gannaawam nee nag mu topp ci ginnaaw fas wa di dox nee na di te boobu sëriñ bee ko mag nee na boobu sëriñ bee ko mag mu toll ci fukki at ak juróom nee na mu toll ci fukki ak juróom mbaa ko ëpp tuuti mbaa lu ko ëpp tuuti waaye moom waaye nee na moom pas-pasam nee na pas-pasam mooy pas-pas ba nga xam ne nee mooy pas-pas ba nga xam ne sahaaba yi àndoon yonent bi sahaaba yi nga xam ne àndoon ak yonent bi doon joxe seen alal <coughs> doon joxe seen alal ak seen bakkan ak seen bakkan te Serigne tubaab bi muy ñëw nee te bi Serigne Touba di ñëw laajuñu sunu bakkan nee na laajuñu ñun sunu bakkan laajuñu sunu sunu deret nee na laajuñu sunu deret xidma lanu laaj nee bi xidma lanu laaj ak haddiya nee na ak haddiya waaye maam Cheikh waaye nee na maam Cheikh Anta yaay ma ko jàngal nee na waajuram wu jigéen moo ko jàngal nu ñuy joxe addiya nee nu ñuy joxe addiya ak nu ñuy jébbuloo ak nu ñuy jébbuloo ndax alalam la jël ndax nee na alalam la jël jox ko nee na jox ko. ne ko kii sa doom yi kii kii ngay wax sa doom yi baay. ni ko kii ngay wax sa doom yi baay. bëggatuma koo dégg mu ni ko bëggatuma koo dégg def ko ab sëriñ nee na mun ko def ko ab sëriñ te jox ko sa bopp te jox ko sa bopp booba nee na booba sëñ Mbàkke Mor Anta Sali nee na sëñ Mbàkke bu génnee àddina yi nee na bu génnee àdduna kenn dencagu ko nee na kenn dencagu ko bi maam Cheikh Anta ñëw di jébbalu nee na bi maam Cheikh di ñëw di jébbalu ñu bëri dañ doon wax ne nee na booba ñu bëri dañ doon wax ne aslamtu nafsi aslamtu nafsi nun koy waxe nit nee na nun koy waxe doomu aadama ba noppi bàyyi yàlla nee na ba noppi nag bàyyi yàlla nu nit di dénk boppam boppam nit. di ko ŋàññi. di ko ŋàññi. waaye waxtu wu ne. waaye nee na waxtu wu nekk. muy gën dëggal boppam nee na muy gën a dëggal boppam. di gën a engagé nee di gën a engagé. ba ba ba baat ba mu daan tontoo. <laughs> ba nee na baat ba mu daan tontoo. lu ko waay mën a wax rek. nee lu ko waay mën a wax. mu ne li ma nekk jaral na ma. nee mun ko li ma nekk rek jaral na ma. waaye ci tënk rek. waaye nee na ci tënk rek. soxna Anta Ndiaye Mbacke. nee soxna Anta Ndiaye Mbacke. bi maam Cheikh Anta ci ak yëngoom dëgg. nee na bi maam Cheikh ndax bi ko Serigne Touba di jox responsabilité. ndax nee na bi nga xam Serigne Touba bi nga ko jox responsabilité. fukki at ak juróom-ñett nee na fukki at ak juróom-ñett ci la toll. ndax ab taawam. ndax ab taawam. di fukki at la ko si ngaa nee na mage mu boole ko téeméeri nit nee na mu boole ko téeméeri nit akub dëkk jox ko responsabilité boobu kon ñun ñoo naan mag ña kon nee ñun ñoo naan wax mag ña waaye ñoom boobu duñu ay mag nee boobu ñoom duñu ay mag waaye seen yitte kayoon waaye nee na seen yitte moo kayoon waaye euh, bi soxna Anta Ndiaye nee bi soxna Anta Ndiaye ñëwee ci Serigne Touba ñëwee nag ci Serigne ne ko seex de ne ko seex de yëngu bi daa bëri yëngu ba xam nee diggaale nee na diggaale daa yem addina daa yem addina mu ne ko bàjjan mu ne ko bàjjan seex mi mu ne ko seex mii lu ma seq ak moom nee mu ne ko lu ma seq ak moom bu doon fukk la nee bu doon fukk benn bee feeñ fii nee na benn bi rek moo feeñ fii te baatub jaral na ma ba te nag te baatub jaral na ma ba ba moo ko ko may nee moo ko may kon jaral na ma mooy lépp kon na jaral na ma jaral na ma nag nee na jaral na ma nag su dee dëgg nee bu dee dëgg doxal rek nee na doxal rek bul gees nee bul gees ñi la ñi la doxoon di la xaar nee na ñi la taxoon di la xaar da leen raw nee na di nga leen raw baanu xelu topp la nee na baanu xelu topp la yoonu Sëriñ Tuubaa nag kon ne yoonu Sëriñ Tuubaa yoonu jëf la nee na yoonu jëf la du yoonu wax de nee du yoonu wax de waaye yoonu toppe kenn ku ne nee na kenn ku ci ne am na a jiit na am na ku la war a jiit topp ca rek nee topp ca rek a topp topp nee na a topp boo bëggee daraja nag nee na boo bëggee daraja ba jiital sa bopp ba jiital sa bopp bis dana ñëw nee na bis dina ñëw Sëriñ Tuubaa wax la ne Sëriñ Tuubaa wan la ne waroo jiite ni la waroo war a jiite nee laa war a jiite nit nag na nit nag yàlla du la cëral ba na yàlla du la cëral ba cër nee na ngay xeeb na sab cër te ku séddu ci sëñ gaawaan nee na te ku séddu sëñ gaawaan kenn ëppatul cër amatul ab cër Serigne Touba nee Serigne Touba du waxee bakkan nee du waxee bakkan waaye jënn jëmm rek waaye jënn jëmm rek la ma a xool nee la la ma xool ni ko yow mii xalima ngay bind bàkkaar xalima ngay bind bàkkaar sa jëmm ji taxul sa jëmm ji taxul muy sëñ Modou muy muy waajuru sëñ As muy waajuru sëñ As muy toog kon loolu ku ko amoon kon nee loolu ku ko amoon keneen ku ko amoon nee keneen ku ko amoon da ko bàkkoo nee di ko bàkkoo kon nag wax ko kon wax ko wàññiwul da am na ñu ko xamul woon nee na am na ñu ko xamul woon te sëñ Modou Mamoun nee na sëñ Modou musul wane ne nee na musul la wane ni ak nekkam ci kaw suuf ak nekkam ci kaw suuf ak wóolu gi mu wóolu sëñ ak wóolu gi mu teewu ko topp yàlla nee teewu ko topp yàlla ci farata ci farata ak sunna ak sunna ngir lan ngir ëllëg ëllëg mu sagale sëñ Tuubaa mu sagale sëñ Tuubaa ngir lan ngir lan ak cant ak cant aku ngërëm aku ngërëm cant mooy lan cant mooy lan ngërëm mooy lan ngërëm mooy lan jëfe jëf kon ku sant ku nangu kon ku nangu sant nga sant nga ku jëfe ku jëfe gërëm nga gërëm sëñ bi nag nee sëñ bi nag am na lu mu wax léegi nee na sëñ maamul am na lu wax léegi mu ne mu côté fi ñetti kotam nee na moo andi ñetti kotam ba noppi ñeentee ko benn nee nag ñeentee ko nag tey mën nañoo njortu na ñoo nañoo njortu nag na noo njot ni waaye mën na noo njort mën na njot waaye mën na noo bañ a xam nag waaye nee na nag mën na a waaye ay wax la daal waaye nee na ay wax la daal euh, sëñ sëñ Abdul Xaadir. nee sëñ Abdul Xaadir Mbàkke. dafa am lu mos a dénk Cheikh Mamadou Lamine Baara. nee dafa mos am lu mu dénk Cheikh Mamadou Lamine Baara. ci digganteem ak Cheikh Mamadou Moussa Falil. ci digganteem ak Cheikh Mamadou Moussa Mbàkke Falil. ko waxoon ne ko loo ko mën a yëkkati. nee da ko waxoon ne ko loo ko mën a yëkkati. doyul nee doyul. te loo ko fonkit. loo ko fonkit. doyul nee doyul. te loo ko waggarit. te loo ko waggarit. doyul doyul. ba benn bis. ba benn bis. genn góor gu ko jege woon. genn góor gu ko jege woon. mooy El alaaji ma yaasin sekk dëkk ca Kaolack neen dëkk ca Kaolack di maam ci man nee di maam ci moom mii mu ne mu ne boobee mu ne boobee sëñ Abdou Khadir sëñ Abdou Khadir daa jóge ci almeer yi daa jóge ci almeer yi daje ak sëñ alaaji baara nee na daje ak alaaji baara di ko alaaji baara ne ko nee na alaaji baara ne ko lang ma waxoon de lang ma waxoon de mu ne ko maa nga ca maa nga ca mu ne ko soo ca nekkee boo ca nekkee doo ko rëcc bi oto bi dawee bi a bi dawee mu ne ko xam nga lu may wax moom mu ne ko ko ah, la nga nekkoon maa ca soo ko defee doo ko rëcc boo ko defee doo ko rëcc ah loolu de xaw ma ko loolu de xaw ko digganteem mu a ko digganteem ak sëñ Mourou Moussa Fallil ak ndax koo xam ne koo xam ne fu mu mën a nekk fu mu a nekk ci suufam ngay nekk ci suufam rek ngay ne loo ko gën a yëkkati loo ko gën a yëkkati sab jotaay gën a yaatu sab jotaay gën a yaatu kon loolu rek la kon nee na loolu rek la kon nit day fonk kilifa bu loolu jàllee nag jàllee kon sëñ Sidi nee sëñ Sidi nii mu waxee nee nii mu waxee bu leneen nekkoon diggante ak sëñ Mamour bu du waxee nii nee du waxee nii kon nañ xam ne kon nee na nan xam ne diggante bi jàmm rek a nee diggante bii na xam ni jàmm rek a jene te sëñ as gede te sëñ as gede wér na ma ne wér na ko ni suñ borom dana ko suturaal nee na na ko ni suñ borom dana ko suturaal wallaahi wal quraan nee na billaahi wut daal ndax xam naa ne ndax nee na xam na ni fa suñ gaawaan tegoon suñ tuba fa suñ gaawaan tegoon suñ tuba képp ku mos a jamono nee nag ci képp ku mos a jamonoonteel ngay njaboot suñ gaawaan ngay njaboot suñ gaawaan wala njabootu sëriñ Tuubaa wala ngay njaboot suñ Tuubaa fexe na ba am sa ngërëm nee na fexe na ba am sa ngërëm kon kooku ku ñuy tudd kon kooku ku ñuy tudd di ko tudd di ko tudd góorgóorlu rek la nee na góor rek la war kër gi nag nee na kër gi nag lii lii fi ne nee lii fi ne ku ciy séentu leneen. nee ku ciy séentu leneen. da ngay tardé rek. nee da ngay tardé rek. waaye day day dem moom. nee na kër gi moom day dem rek. ci kàttanu yàlla. nee ci kàttanu yàlla. incha allah incha allah. ndax ki ko jëmbat. ndax ki ko jëmbat. jëf na ko jëf na ko. te euh, ñi fi bàyyi it. nee fi bàyyi. mate nañ nee mate nañ kon yal na yal yal na fi cat dëddu. kon nee na yal na fi cat dëddu. ak gàllankoor. ak gàllankoor. ci barke Seexul Xadiim. ci barke Sëriñ Tuubaa. li leen sëriñ bi di digal nag. nee na nag li leen sëriñ bi di digal. ngeen gën koo jàppal suñ. nee na ngeen gën koo nag jàppal suñ Moodu Maamun mi. te xam ne suñ Moodu Maamun mi. nee na mooy sëriñ Siidi mi. nee nga ngeen xam ni mooy sëriñ Siidi mi. sëriñ Siidi mi. nee na Siidi jenn jëmm wala jenn jëmm jiwuyoo wen nee na ñaari tur ñaari tur nee na jiwuyoo ñaari tur lépp sëñ As Gede la ko nee lépp sëñ As la ku dagg sëñ Maamun mi nee ku dagg sëñ naaj nee sëñ Siidi mii mooy mooy naaj kon ku ku si sëñ Tuubaa waxoon Seex Anta nee na la sëñ waxat maam Seex ne ko bàyyil bëre ne ko bàyyil bëre ndax seex ndax seex booy bëre booy bëre ka ngay bëreel ka ngay bëreel su may dugg ci ay yeelam su may dugg ci ay yeelam du ko tay du ko tay kon loolu rek la kon kon nag sëñ baa ngi ko doon kon nee na fonk bu baax nee na gën fu ngeen ko gisit te fu ngeen ko gis ngeen xam ne nee na ngeen xam ni farata lay dox nee na ci farata rek lay dox ak yittey kër gi ngeen jàpp loolu bu baax ngeen jàppale ko ci bu baax a baax te teel ko ko bu baax te ko a baax te it lim leen di joxoñ nee na nag te lim leen di joxoñ muy loo xam ne da ngeen koo bëgg muy loo xam ne da ngeen bëgg mu di leen jariñ mu du leen lor te du leen lor ngeen yaakaar ko ci moom nee na ba mu leen doxal. nee na foofee. salabul ixtiyaar. nee na foofee. tànn tànn amu fa. amu fa. ndax diggante. ndax diggante. nit nit. ak kam wóolu ak kam wóolu jëm ci yoon nee na jëm ci aw yoon da koy bàyyee boppam rek nee na da koy bàyyee am xelam fu mu ko jëmee rek fu mu ko jëmee mu xam ne foofa nee na mun ne nee na sëñ Tuubaa nag kenn du ko liggéeyal nee kenn du ko di na bët mosu koo gis nopp koo nee na nopp mosu koo dégg te wërsëgu àddina nee na te wërsëgu àddina wi lu mu bëri bëri nee lu mu bëri bëri lenn képp ñu ci jariñ nee na lenn rek moo ñu ci jariñ li jox sëñ Tuubaa nee na li ñuy jox sëñ Tuubaa rek ndax julli yi ndax julli yi ak woor yi ak woor yi wóorunu de nee wóoruñu ndax yàlla nangu na ko ndax yàlla nangu na ko bis bu nu ko fayee ne buñ ko fayee ci nin ko jëfe ci nin ko jëfe dara du ko jar ne dara du ko jar waaye sëñ Tuubaa moom waaye sëñ Tuubaa moom lu ko waay jox ne lu ko waay jox ñàkkoo neen ñàkkoo ndax eh, li ko yàlla fayee ndax li ko yàlla fayee ba yaakaar ko ci moom ba ñëpp yaakaar ko ci moom woowuñu toog mu dem di ko wuti ne mu doog a dem di ko wuti waaye daa nekk ba mu ne fi daa nekk ba mu ne ñu yaakaar ñu xemmem ko ne ne nag ñu ak ak cofeel ga. ak cofeel ga. ak yéene ja ak yéene ja. mooy sag jariñ. nee mooy sag jariñ. koo mën a jébbul. nee na koo mën a jébbul. ak lu mu rëy rëy. ak lu mu rëy rëy rëy. ak ku mën a doon ak ku mën a doon. te sa pëseef. nee te sa pëseef. feesul xottu gerte. feesul xottu gerte. doo jariñu dara. nee doo jariñu dara. pëseef mooy jariñ ab nee na mooy jariñ. mooy jariñ ab taalibe. mooy jariñ ab taalibe. ab sëriñ. nee na ab sëriñ. dañuy jariñu ci moom nee dañuy jariñu ci moom waaye ab sëriñ waaye ab sëriñ xam ne bëgg ngaa jariñ nee mu natt fa mu natt nag fa sa pësteef tool mu dàkk loola foofu nee mu dàkk loola foofee te sëñ ne na damaa mën a jonge damaa mën a koy dawal dama koy bàyyi mu daw ba xoo nee dama koy bàyyi mu mooy ñëw ne sëriñ bi nee mooy maa ngi nii maa lu la sëriñ bi digal nga demee ci sa xelum bopp nga demee moom nee loolu de ak woro ak waroo la ku ko xam ku ko xam yaa ngi ci ak waru yaa ngi ci ak waru ku ko xamul ku ko xamul yaa ngi ci ak waru yaa ngi ci ak waru marchandise nag nee marchandise nag dee su ko jaay kenn ko jaay ba lekk njëgg ba lekk njëgg wëlbatikuwaat sa xel di nekkaat nag ci marchandise te ci soxla te ci soxla du fii du fii fële la nee fële la te lañ jamono am fële te lañ jamono am fële fii lañ ko mën a jël nee fii rek nag lañ ko mën a liggéey ku ñu nax ngir suñ Tuubaa kon nee na ku ñu nax ngir suñ Tuubaa te fii kenn naxewaat defewu ku bëgg a jëriñ am pas-pas bu nee la ca biir xol yi nee la ca biir xol yi ak dënn ya ak dënn ya yàlla koy àtte waaye ak dogu daal waaye ak dogu daal la ñuy nit nee na la nit suñ baa leen ko ko dolli dégg xam ne ëtt bi daal nee na xam ne ñett wi sëñ As wax ne sëñ As Gédé wax ne lu fi waay bëgg lu fi waay bëgg soo ko fi dagaane boo fi dagaanee da ko am di nga ko lu wér la nag nee te lu wér la lu ma leer nañ nee te moom lu ko leer nañ la ay nit ñoo xam ne ndax ay nit ñoo xam ne ñëw nañ fii ci moom nee ñëw nañ ci moom di sàkku dara di sàkku ci dara mu ne leen mu ne leen jëf leen dara ci dëkk su ngeen jëfee dara ci dëkk bi nee leen fay nee dëkk bi dina leen fay kon ku gi nee ku gi kër gi la fay nee kër te xam ne ca xam ne taalibeb daaru salaam taalibeb daa am ñaari mbir yoo xam daa am ñaari mbir yoo xam ne da ko war a fonk ne da ko war a fonk muy woote addiye muy woote addiye ak màggalu daaru ak màggalu jar na miraasu nee na jar na miraasu ngir màggal ngir màggal woote addiye nee na woote addiye yi jar na miraasu jar na miraasu ngir sunu ñàkk dem ngir ndax ñaari bis yooyu ndax nee na ñaari bis yooyu ngay sukk jéblu sëf sëriñ ngay sukk muy sëriñub daaru muy sëriñub daaru mu dénk la boo ko nga dégg ko wala nga ci lu jëm ci laaj nee te lu jëm ci laaj loolee la nee te loolee rek kon ki nga xam ne kon ki nga xam ne da ngeen ngeen a ànd da ngeen di ànd lu lu mu gis muy jariñe lu mu gis muy jariñe mu yéene la ko mu yéene la ko te loo am te loo am mu bàyyee la ko mu bàyyee la ko war ngaa xel lu na war ngaa xel bu baax te fonkaat bis bi nee na nag fonkaat bis bi te xam ne kër sëriñ bu ne te xam ni kër sëriñ bu ne lu fa ne lu fa ne taalibe yaa ko def nee taalibe yi ñoo def sëriñ bi moom nee sëriñ bi moom li ko war li ko war mi ngi ci mi ngi ci te li boromam warloog moom moom mi ngi ci nee mi ngi ci ala kulli kon nag ndem ñun ñoo jaayante kon nee na comme ñun ñoo jaayante te kenn campagne ul kenn te kenn campagne ul kenn kenn waxul kenn kenn lu ko neex mu kàllaf nag nee mu kàllaf nag lu mu sëgg di ko wax lu mu sëgg di ko wax te kenn gëtanu ko te kenn gëtanu ko war naa doon dëgg ci nee na war naa doon dëgg ci moom sàqa mi nag sàqa mi te sa bopp ngay nax nee maam Cheikh Ibrahima Fall maam Cheikh Ibrahima Fall. am benn taalibeem am benn taalibeem. bu faatu bu faatu. ñu ñëw di ko ko tàggee. nee na ñu ñëw di ko ko tàggee. mu ne kooku de. nee na mu ne ko kooku de. bu ma ko xamee it. boo xamee. gëj naa ko gis gëj naa koo gis. toog ba mu yàgg. toog ba mu yàgg. mu ne ah kay. mu ne ah kay. kooku de. kooku de. mos naa ñëw fii. mos naa ñëw fii. di jébbalu. di jébbalu jox ma ab dërëm. jox ma ab dërëm. waaye ba fii ngeen ma ko tàggewaat. ba fii ngeen ma ko tàggewaat. jëfalaatu fi suñ tubaa dara. fi suñ tubaa dara. waaye nag dinaa ko tinu. waaye dinaa ko tinu. mu dem aljana. mu dem aljana. waaye aljanay gàcc. waaye aljanay gàcc. ñaareel ba. ah ñaareel ba. suñu as gede. suñu as gede. moo jullee ab néew fii. de moo jullee fii ab néew. xam ne. koo xam ne. ko sab taalibe. dañ ne ko sab ko ba noppi. mu jullee ko ba noppi. daal di ne. daal ne. gàcceeg taalibe de gàcceeg taalibe mi ngi ci mi ngi ci nga faatu nga faatu sëb sëriñ sëb mun ta xam ndax mun ta xam ndax da weex da ngaa weex wala da ngaa ñuul wala da ñuul loolu taalibe bu ne bu nekk war na ko mooy jébbalu naa rek jébbalu naa ay wax la ay wax la soo ko jëfee boo ko jëfee ñu jàpp ne ñu jàpp sëñ Tuubaa daa waxoon sëñ Tuubaa daa waxoon ku ñëw ci moom daa am ku ñëw ci moom ne damay jébbalu nekko ko damay jébbalu sëñ Tuubaa ne ko sëñ Tuubaa ne loo ci jublu loo ci jublu mu ne ko aw ma ndey mun ko aw ma ndey aw ma baay aw ma baay aw ma nijaay aw ma nijaay sëñ Tuubaa ne ngir lan sëñ Tuubaa ne ko ngir lan mu ne ko ngir ma jox la sama bopp ngir ma jox la sa bopp mu ne ko defal liggéey mun ko defal liggéey muy sa ndey muy sa ndey nga def jaamu yàlla mu nga def jaamu yàlla muy sa baay nga def doylu nga def doylu muy sa nijaay muy sa nijaay te ngay sosi te ngay sosi kon ab taalibe daa war di sosi nee na ab taalibe daa war di sosi yoruma rek nee yoruma sëriñ bi yor boolewu leen sëriñ bi yor boolewu leen te àddina te àddina li nu yitteel li nu yitteel ñu ngi góorgóorlu ñu ngi góorgóorlu ngir mu jàkk ngir mu jàkk te bàmmeel gënu jëm bàmmeel gën jëm ak barsax gën jëm ak barsax gën jëm suñ tubaa leen fa yaakaar suñ tubaa rek lan fa yaakaar buñ fa demee nag buñ fa demee lan bëgg lépp lan bëgg lépp danañu ko defal dinañ ko defal waaye ndax méritoo nan waaye ndax méritoo nan ko lu mat a bàyyi xel nee lu mat a bàyyi xel waaye sëriñ bi ne ko waaye sëriñ bi ne ko mu ne mu ne ko boo ma digaloon sax mu ne ko boo ma digaloon donga bee wax na ko ne donga bi moo koy wax ni ko boo ma digaloon boo ma digaloon ma dugg ca teen bee ma dugg ca teen bee ma dugg ca ma dugg ca sëñ Tuubaa ne ko sëñ Tuubaa ni ko digal la ko digal la ko amalu la njariñ amalu la njariñ amalu ma njariñ amalu ma njariñ da nga ko bëgg a def rek da nga ko bëgg a def rek aw lay aw lay doyade la ko jaam yàlla doyade la ko jaam yàlla def ko awlay sama diggante ak yow nee na def ko dig sama awlay sama diggante ak yow kon taalibe bu ne kon taalibe bu ne la mu war a nekk la mu war a nekk bu nekkee ku sëriñam bu nekkee ak sëriñam day diglu bu baax day diglu bu baax lañ koy digal lañ koy digal bu bu bu génnee bu génnee mu jéem caa nekk ki jéem caa nekk ba baa muy gisaat sëñ bi <coughs> a gis sëñ bi ba ba muy ba ba xam lu mu cay dolli ba xam la joxoon daaw ma waaye ndigal lan la joxoon daaw waroo egsi ren rek nee na waroo egsi ren daal di koy bàyyi daal di koy bàyyi da war a wut kay nee na da war a wut tey loo ca dolli bu daat loo ca dolli muy muy lu yees <coughs> muy ndigal lu yees loo xam ne loo xam ne bind bu njëkk ba moom bind bu njëkk ba mokk na mokk na ba koy tari ba yaa koy tari bu bees bi nag nee na bu bees bi nag da nga war a jéem a mokkal nee na ko war a jéem a mokkal sëñ Modou Aminta Fall mii nee na sëñ Modou Aminta Fall mii daa am taalibeem boo xam ne <coughs> daa am taalibeem boo xam ne daa jébbalu woon ci moom weeru koor weeru koor mu bind ko leetar nee mu bind ko leetar na ko indil ñaari ne ko indil ñaari mooy saw sas mooy saw sas sa nee na nag jëndewal sa mu ñëw di siyaare nee na mu sëñ bi daal génn leetar bi nee na sëñ bi génn leetar bi jox ko ko nee jox ko mu ne ah mu ne ah mu ne ah lettre bii de. lettre bii de. xam naa mooy lettre bu daaw ba rek. mooy mën nga xam naa mooy lettre bu daaw. daal di làmm poosam. nee na làmmat poosam. génne ñaari junni. nee na biir lettre bi. génn ci biir lettre bi. daal di koy jox sëñ bi. nee naa koy jox sëñ bi. sëñ bi na ko. sëñ bi ni ko. ndax jàngale na ci lettre bi. mun nga sëñ bi ne ko ndax jàngale na ci lettre bi. mu ne ko damaa ne ndogoy daaw yi ñu ma yëgaloon. ren ñetti junni la nee mun ko ren ñetti junni la xoolal ba xam yokku nga nag mun ko xoolal ba xam nag yokku nga wala yokku wala yokkoo kon am murit kon am murit day dolli day dolli ndax lu nu am ci sëñ bi rek nee na lu nu am sëñ bi xeeb nan nee kon loolu moo doonoon kàddu yi nee na loolu moo doonoon kàddu yi ci gàttal ndax mbir mi kat <coughs> ndax nee na mbir mi daal ñi ko seq ñi ko seq kenn ku ne ci ñoom nee kenn ku ne ci moom la nga ca war a xam la nga ca war a xam leer na ci yow nee leer na ci yow taalibe yi nag nee kenn ku ne kenn ku ci nekk nga jàpp ka nga jàpp mooy sam sëñ Tuubaa nee mooy sam sëñ Tuubaa bul sa yoon ne ca kam jàpp nee na bul sa yoon ne nag ca kam jàpp ca kam jàpp kam jàpp sa yoon newu ci nee na sa yoon newu ci yow daal yow daal jàppal te suñ Tuubaa a na jàppal daal sëñ Tuubaa te nga dëggal sa passé te nga dëggal daal say wax ndax Cheikh Moustapha Karim ndax am na taalibeem boo xam ne nee na ko doon wax ne ko nee da yoonu murit yoonu murit ni mu yëngoo ni mu ak say kilifa ak jaxasee ki bokkam bëgg jaxasee ak ki bokkam si mënu sa ne ko nee sëñ mënu sa mbàkke ne ko yan bi yan lan moo ci sax yan moo ci lan nga ciy participer nee lan nga ciy jàppe daal ci yan mu ne cell ne ko xam nga lu ma lay dégg mu ne ko xam nga lu ma lay dégg nga fexe ba yow nga fexe ba yow sa taalibe rafet rek sa taalibe rafet li ci def nga bàyyee ma nee li ci def salaam wa rahmatulah. yaa bari nga ñaay doom nga ci soxna Anta. doom nga ci soxna Anta Njaay. Mbakke mooy sa baay. lii rek nga am ngërëm. yaa ji umra dem mi nan dem Arafat yaay ki fi matal nga far. yaa Mbacke bis bi euh, alhamdulilah sant rek alhamdulilah tabaraka barakallah alhamdulilah alhamdulilah sintu xasidati ti sukora walam tasal ya maliki zakora akramtani ikraman ma sabahal وكل ما أردت منك أنفال أتيتني يا ربي من لدنك يقرا حكيما فرديت عنك باركت لي يا ربي في العروف وخيرها وجدت بالمعروف ملكتني بكونك الكريم ما خادني تبشيرا وتكريما أتيتني مع القلب أنسى كلما مدى من الدر ما تسلما كفأني من ماله كفانات بمال خير ساخ كل من جات أكرمني بالخلوة واللوات ربي ولم يكن له كفانات ناجاني الله كريم صمت تناجي به كفاني كمت وجهل الأكرام أنفى كرام ودرر بخير راد لأن سلام أثله كونتي قصيدة خريقة لعادة مفيدة يا حي يا قيوم صل بسلام على الذي جاء بعزل الكرام على الذي جاء بعزل الكلام صل وسلم وتقبل ذا الكلام وآلي وزاب الأبرار في اللالي والمال بتقراري هذا وقد خدمة تقر حين النبي به كما تبر نويت من سلام خدمة تسر مصطفيا به كفيت ما يدر xadrumtu min rabbil baraya qiduma liman bi jaayi kafaani saduma ahmadu ala qurori min darar wa kullu soyin wa nay wa qarar adkuruhu sukru yajuru sayda bisan wala yajuru nawi kayda hamdan wa sukran la sama burora rabbil wara wa sayyidal qurora fa qumtu nasiman lisil muqaddama musalliyan bi ala man qaddama murtadiyan kawni qadim lasna wa an abwada bil maqarrasna mundalisan min maliki أن يرفع بها التي يريد أن يتبع جعل الله بجاه المصطفى صلى عليه بسلام المصطفى نسما مباركا يقيا صحابا كما لسي كابرنا صحابا أرجو ستر حامدة لله مع الكتاب ورسول الله سميتها جالبة المراقب في هاجل كهاجل الراقب سميتها جالبة المراقب في آجل كهاجل الراقب la ma waxoon sëñ Sidi rek. waaye la ma waxoon sëñ Sidi rek. la lay wax. moom la lay wax. balay sa. li ngeen ma màggee bëri na lool. nee na li ngeen ko màggee bëri na lool. waaye jàpp naa ne. waaye moom jàpp na ni. lu ci man rek. lu nekk fi moom rek. yéen ko def ci man. yéen yéen a ko def ci moom. muy sëriñ Afiya mi. muy sëriñ Afiya mi. ak sëriñ Sidi Male. ak sëriñ Sidi Mokhtar Male. wax ju ne nag. nee wax ju nekk nag. day am firnde. day am firnde. te day am seede. te day am seede mën naa ne. mën na ne. li ma yàlla séddagun. li ko yàlla séddagun. ci ay leer. ci ay leer. génnagul ñaari jëmm yooyu. génnagul ñaari jëmm yooyu. muy Serigne Afia. muy Serigne Afia. Serigne Mame Cheikh. Serigne Mame Cheikh. Serigne Sidi. Serigne Sidi. ak Cheikh Bamba. ak Serigne Cheikh Bamba. kon mën naa ne. kon moom mën na ni. sama lépp. léppam. dama ko jël rek. da koo jël rek. jox ko samay sëriñ. jox ko ay sëriñam. ñuy samay mag. ñuy ay magam. defu leen ay mag defu leen nag ay mag. ay def. ay sëriñam la leen def. leer na ma ne. ndax leer na ko ni moom. bu doon njëmbat la bu doon njëmbat la moom. seen seenum ndox. seenum ndox. moo ma roose. moo ko roose ba mu tooy xepp. ndax léegi léegi. ndax léegi léegi. mu jëfandikoo seen kaddu. mu jëfandikoo seen kaddu. goo xam ne. goo xam ne. seen la ñoom. seen kaddu la ñoom sëriñ si. kon lu ma mën a mel rek. kon moom nu mu mënti mel rek. fi Afia mii la. sëriñ Afia mii la. ak sëriñ sii di ak sëriñ Male. loolu rek laa ci am lu may sànni ci mbooloo mi nee na loolu rek la am lu muy sànni ci mbooloo mi ngir seedal ko mbooloo mi ngir seedal ko mbooloo mi rek bàllaay sëñ ñu ngi lay ñaanal bu baax nee na bàllaay sëñ a baax a baax nga gën a yàgg gën a wér nga gën a yàgg gën a wér ci borom Touba jërëjëf Mbacke jërëjëf waaw moom de bu waxee ba noppi de kenn du ci teg leneen hmm. waaye moom it Mbacke ñi ngi ñaan hmm. nga ñaanal ñu ko mu yàgg fi loolu te wér hmm. ni mu nekk fii ci dëkk bi la nekke ci àll bi ci àll bi lañ xamante ak moom waaye sëñ Touba dong lañ gis ci moom moo tax ñu dagg ñu te yëpp ñëw te bëli wëllëre lool ci àll bi fu mu dem wallahi lazim sedd naa ko sama doom man taalibi bi Sëñ Abdou Lahad laa waaye jox naa ko sama doom mu jébbalu ci moom ndax Sëñ Tuubaa gu ma gis ci moom kon nga ñaanal ñu ko wax dëgg yàlla Sëñ Tuubaa dong lay def ci ñun ci àll bi waaw Sëñ Tuubaa képp ko ñor kon ñaanal ko mu gudd fan te wér te tani jolet te kaw ñëpp di ko gis nag waaye kenn bañ koo mënal dara it. ngi sant yàlla bu baax. sëriñ bi nee na noo ngi sant yàlla bu baax. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. di jaar fan jaaroon daaw. di jaar fan jaaroon daaw. ak daaw jéeg. ak daaw jéeg. ak daawaati jéeg. ak daawaati jéeg. fi la ñuy jaay fi la ñuy jaay fi la ñuy jaay jaar ren itam. sëriñ bi nee na la ñuy jaaraat itam. di ñaan di dafa jaar ba faaw it di ñaan dafa jaar ba faaw it nag. ndax kat mbir mi. ndax mbir mi. koo gis ni mu demee tey. ku xool ni mu demee tey jii. ak nam daan deme ak naan daan deme boo amee gis. boo amee gis. dana am loola sab gis may. dana am loola sab gis may. ndax ku yokk ku yokk yëg ko. nee na ku yokk yëg ko. ku wàññi ko yëg ko. ku wàññi ko yëg ko. ndax sëñ Mamoun mii. sëñ mii. li nit ku baax di sàkku. li nit ku baax di sàkku. te am lu ngeen ci tudd léegi. te am lu ngeen ci tudd léegi. yàlla def na ko ci moom. yàlla def na ko ci moom. ndax aajo bu fajoo. aajo bu fajo day am ay mandarga. day am ay mandarga. mandarga yooyu nag. mandarga yooyu it nag. moom la fi indi saa su ne. nee moom la fi indi saa su ne. ci ak wet ci ak wéet. ak wéetiliku ak wéetiliku. ba tax na wóor na ma ne. ba tax na wóor na ma ni. fu dem fu ne. nee na fu mu dem fu ne. ku teg loxo. ku mu teg loxo. yàlla teg la loxo. yàlla teg la loxo. bu tegee bu tegee loxoom. bu tegee loxoom. yàlla teggi loxoom. yàlla teggi loxoom. man de xam naa ko ci moom loolu. sëriñ bi nee na loolu xam na ko ci moom. kon nag. kon nag. na leen wóor ne. na leen wóor ni. ëpp leen. app leen. yeesu leen. yeesu leen. gimiñ jàpp leen. gimiñ jàpp leen. yooyu lépp bu leen ci daloon. loolu bu leen ci daloon. bu leen ci bu leen ci lenn daloon. bu leen ci lenn daloon. ah kon yàlla du leen booleeg moom. nee na kon yàlla du leen booleeg moom de. kon sant leen yàlla bu baax. sëriñ bi nee na kon sant leen yàlla alhamdulilah rabbil alamin. te xam naa ko. nee na te kon xam na sëñ xam na ne sëriñ bi nee na xam na sëñ Mamoune mi de. te xam na ne du ma géwélam nag. te xam na nu déedéet du géwélam de. tëgguma ko. nee na tëggu ko de. waaye nag. waaye nag. alxuraan daa am lu mu wax. alxuraan dafa am lu wax. ku ne jàkk lu baax. ku ne jàkk lu baax. gis ko. gis ko. lank bañ koo seere. lank bañ koo seere. loolu de yoon yàlla dafa wax ne. yàlla dafa wax ni du dal lu dul borom xol bu laa laabut. du dal lu dul borom xol bu laabut. wala yaa si bilaay. waaye xolam sell na. nee na xolam sell na de. te baax na. nee na te baax na de. ñi mu war a teg fi barab. te ñi mu war a teg fi barab. ñëpp jox na leen ab cër ñëpp jox na leen ab cër. te dëgg man day xamal leen na. sëriñ bi nee na mi ngi ñuy xamal ni. nit ku ne. nit ku ne. noo ko jàppee rek xam na ko. noo ko jàppee xam na ko. loo yokk ci darajaam xam na ko loo yokk ci darajaam xam na ko loo ci wàññi xam na ko loo wàññi ci darajaam xam na ko waaye lu mu war a jàppi nit rek nee na lu mu war a jàppi nit rek ci di kilifaam di kilifaam jàppe na ko noona nee na na ko noona kon moom it lu ko defal rek nee na kon moom lu ñu ko defal rek yayoo na lu ko sëriñ bi nee na yayoo nga lu ko ëpp te it gisagoo dara te nee dara de man maa la ko wax nee na moom moo la ko wax de te xaal day te xaal day ah xaal du fen de xaal du fen de ndax de yàlla. ndax de yàlla. am na loo xam ne. am na loo xam ne. da koy maye. da koy maye. am na loo xam ne da koy jaay nag. am na loo xam ne da koy jaay nag. ku am njëg jënd. ku am njëg jënd. ku amul da ngay perte. ku amul da ngay perte de. te itam. te itam. dafa am loo xam ne. dafa am loo xam ne. ci la yoonu murit di dox. ci la yoonu murit di dox. mooy jàpp góor jàpp ci góor. mooy jàpp góor jàpp ci góor. góor jàpp ci góor. góor jàpp ci góor. góor jàpp ci góor. góor jàpp ci góor. noonu la pays bi doxee. nee na loolu la pays bi doxee de. te loolu day. te loolu day. dafa jëmbatu ci moom mii. dafa jëmbatu ci sëñ Maamun eh, sëñ ah, sëñ Maamun mii. kon nag. kon nag. la yàlla doon dig yu baax ya. la yàlla doon dig gaa yu baax ya. mi ngi ci moom. nee na mi ngi ci sëñ Maamun mii de. lu dul yàgg. ndax lu dul dëgg. nee lu dul dëgg. du yàgg du yàgg. waxuma laak di sax. wa waxuma laak nag di te ziar day. te ziar day. lu am doole la. lu am doole la. nag daa yàqu. jamono nag daa yàqu. doxug mbokk. doxug mbokk. bokkut ak doxug mbokkule. bokkut doxug mbokkule. looy bokkule. looy bokkule. te bari na aaju ju faju. bari na ju faju. ci siyaar rek la fajoo. ci siyaar dong la fajoo. ndax sëñ Tuubaa kat mag ñi daan jóge fii. nee ñi daan jóge fii. di dem Sarsara. di dem Sarsara. ba mu wax ko ca wayam wa. ba mu wax ko ca wayam wa. inna lazina ilaa Sarsara. inna lazina ilaa Sarsara xas xasadoo. siyaaratil faaraxoo daarayni aw zaara. loolu ab siyaar rek ko nee na loolu ab siyaar rek ko indi. kon nag tànk yii. nee na sëriñ bi naan kon seen tànk yii. xàmmeewu ma ko tànk ñu ñooñu fekk. xàmmeewu ñu ko tànk yooyee fekki woon sëriñ Touba Sarsara. ak sëriñ Touba rek a taxoon. nee na sëriñ Touba rek a taxoon. te yàlla kat. te yàlla lu mu daan digee. lu mu daan digee. te di ko maye. te di ko maye. amul fenn fu mu wax ci alxuraan ne. amul fen fu mu wax ci alxuraan ni. ñu baax ñi dong ko moom. ñu baax ñi dong ko moom. ñu njëkk ña. ñu njëkk ña. déedéet. déedéet. nee na ñooñee nañu meloon. nee na ñooñee nañ meloon. ku jaar fa ñu jaaroon ku jaar fañ jaaroon. ma jaar ak yow fa ma jaaroon ak ma jaar ak ñoom ma jaar yow fa ma jaaroon ak ñoom. loolu la de nee na loolu la kon lenn lu fi manqué amul. nee na sëriñ bi nee na kon lenn lu fi manqué amul. yitte nag yitte nag mën naa manqué. yitte nag mën naa manqué. waaye ku sa yitte mat. nee na waaye ku sa yitte mat. ci yàlla yàlla. ak ci sa pas-pas ak sa pas-pas. lu ne mën nga ko am ci pay bi mën nga ko am ci pay yàlla bi. te saa su ne nag. te saa su ne nag. yàllaa nga ca péem ba lu borom. yàllaa nga ca péem ba lu borom. loolee nag. nee na loolee nag. na ma ko yàlla joxal sëñ Maamun. na ma ko yàlla joxal sëñ Maamun mii Mbàkke amin amin amin ndax ak dolli koom. ak dolli koom. nee na mooy ak kon nag. kon nag. nii rek nii nii nii rek. nee na sëñ Maamun nii rek. kon nii la nii nii. ku nii yàlla nga nii. sëñ Maamun nii rek. nii sëñ Maamun nii. nii ca kanam. waxuma nii de. nee na waxul nii de. nii nii rek ca kanam nii rek ca kanam sëñ Mamoun sëñ Mamoun nii ca kanam yàlla la yàlla defal barke yàlla la yàlla defal gudd fan amin gu ànd ku wér ak sutura ak teraanga ak mujj gu rafet looy am yàlla na nga am yàlla looy am yàlla na nga am yàlla loo ñàkk yàlla boo ñàkk yàlla loolu lépp loo ñàkk yàlla boo ñàkk yàlla yéen ñi ànd ak moom yéen ñi ànd ak moom yàlla ngeen yokk yàlla ngeen yokk ba yëg ko am jàmm am jàmm am jàmmoo am tawféexi saa yëreeg baatin ci Daaru Salaam barke jërë ngeen jëf nangul te jël sëñ Afia jox kum jox nga nay dëgg te ji sëñ Mamoun yaa gën yow ba laay sa Mbàkke gën nangul te jël yàlla jox kum jox nga nangul te jël sëñ jox sëñ Mamoun nangul te sëñ aafi ala jox kum jox nga am nay dëgg tey jii yow yaa fi gën sëñ maamu Mbàkke borom daaru salaam waa léegi eh, sëñ sëriñ bi kuñ kuñ laal sab góom nga ñootlu dañoo laal sama góom ni la sëñ maamun def noonu la ma sëñ aafiya def muy génn géej bu neex goo xam ne lem la goo xam ne foola la mbaaje lem ku laal lem xam ni lem laal na la ku lem laal nga xam ni lem laal na la lemanu laal kon dana saf dina neex te lii yombul gars yi yombul de nan xoolaat bu baax jataay bi xoolaat le waral jataay bi xoolaat sëriñ bi bi mu ñëwee ni def ak ni mu def ak ni mu ko ni ñu ko def lim fi jëlee lim fi andi ak lim fi jëlee xoolal li ko ko may kon xamee nga ma Mbàkke maa ngi nii doon dofub Cheikh Ibrahima Fall Ibrahima Fall yit moo nekk nii sëñ Mamoun mii moo ma bëggal boppam <laughs> neex na ma man neex naa ko lool ku ànd ku ku ni loolu ku ni sëñ Mamoun yi su ne sëñ Afia waaye dafa day jëmbaajoo nee naa leen géejee jëmbaajoo